ndëgël ndëgël ndëgël aca kaay leen seetaan seen baay ñëw naa nga ni commandé naa njëlu Sonko Sonko du ci man de dafa mais dina fi Nih, Songko beri dole. Songko, Songko, Songko. siare na leen ci lu ne ba yene ci jam si bu baax a baax a baax a baax moom Pape Lamine Faye Dias dinañ leen dikkal ci kaddu yu ñaaw yi nga xamni ni nii nako mom part moom Pape jass mi nga xamni mo daan wax naan bojo bojo yee seen bay ñew na mom part moomu nak moy bañ ñu nako bojo bojo yee sa bay ñew na mom part momu ak kàddu yi nga xamne ñaaw na mu fësal ko ci gémmiñam googu mom nak duñ ne guléet ndax tam nañ di ko gis mu yëkkati kàddu yu ne mel dinañ leen ñëwalit ci kàddu yi nga xamne ni ki di maître Ngagne Demba Touré borom xam-xam bobu nga xamne Sénégal yépp nangul nañ ko ni ki borom xam-xam la moom it yëkkati na ay kàddu yu ama am solo te mata baye xel ginnaaw lool dinañ leen tegal kenn ci kër do fi kon gaay lool moy mooy taxañu mbir mi léegi ñu takkartu leen ko dañ koy dooree ak ki nga xam ne nag moo di maître Ngagne Demba Touré ci kàddu yi nga xam ne daal dina koy fësal kon li mu bëgg a imposer mooy li ma ñi ma ci premier jàngat mooy kii li mu doon wax ah non il est sûr de li wax mooy dëgg ñaareel bi mooy ku bëgg Sénégal la parce que dafa bëgg imposer un débat public de qualité ay débat wu nenu baxal ak sac à main ah ak ay saaga ndey bu ñu Sonko yee nga saaga ah non man moom Sonko yooyu moom xam naa ne ñun ah, mooy nekk suñu campagne à Dakar. ah non Abass Fall la gars yi wax Sonko yee rek mooy dagg xolu gars yi na wax booy fu gars yi romb nañ ne Sonko yee gars shine mer saaga pétard. Sonko yee bi yooyu ba nga dégg Sonko yee Sonko yee bi yooyu ba nga dégg donc débat public de qualité la bëgg kon politiciens yi nga xam ne dañ leen dénk mairie pour suñu paas bi saaga ndey nañ nañ leen xamee ak ak ak ak banditisme dans le champ politique. Mm. te loolu dina jeex Sénégal nag. Mm. ah mais ñun dañuy yow yaa njëkk a wax Bougane Gueye ko bu dee ñeme nga kaay toog ñun ñaan waxtaan. mais ay nenu baxal duñ ñëw xam nga ko duñ ñëw yow xam nga ñun duñ ñëw débat public de qualité. ma man nee maa gën a man xam-xam passif. grand yi moom duñ wax ak yow man maay ñëw wax ak yow. kaay leen ñu débat ñettel bi moy président Ousmane Sonko dafa bëgg Amadou Ba Amadou Ba man suma doon mom Amadou ah, Ba raté occasion bi dé hmm. premier ministre du Sénégal jox la une occasion historique ñaata candidat ñoo fi nekk yow ngay tedd liste. muy tedd liste mu ne kaay ñu débat sur ces questions. nga yow ya ko jangalon ENA yow ya ko formé dans l'administration fiscale. Hmm. yow set nga yow am nga xam-xam. ah non mais il faut que je vais pas rater cette occasion historique pour taxaw que sénégalais ne sont man moi, je xam mais les sénégalais yéen da gens ci mhm. ndax ont yi ñu donc il est sûr de mu mhm. débat bi. assurance daal la Sénégal parce que débat public de qualité est imposé mhm. Le imposer. bi Amadou ah non man su ma doon yow damay jël. occasion ah dañ la may tànk tànk. ah non jël ah damay tànk damay tànk ba jox nañ ko sujet yi looloo gën a neex. man dictée préparé la. Ah, jox nañ la sujet yi. ah jàng soo ko ñëw ñu def examen. yàlla lii neex na waaye. yow dañuy joxal si say bugaat léegi man maa ngi xam naa waa RTS ah, su ngeen kiiwul waa Sénégal set dinañ ko organiser donc ngañ dem fii bugaat gee toog fii après suñ paree. du mus a ñëw Ousmane Sonko toog. après Amadou Ba toog. non man dinaa fa organiser ko.

su ko defee nag suñ paree jublu ci Ousmane Sonko ak Amadou donc maa ngi ñëw. bonne chance. am solo moom maître Ngagne Demba Touré xam ngeen ne xam-xam du pexe moom maître Ngagne Demba Touré nag ni mu koy yàgg di defee rek noonee la ko daal di defee ci xam-xam bu bari bi képp nag ku ñeme na nga ñëw képp ku ñeme débattre ak maître Ngagne Demba Touré na nga ñëw bu fekkee ne ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko. ak chef de l'opposition muy bi Mbila moom it li nga xam ne moom la ko Ousmane ko woon na ci wuyu boo ko defee réew mi nag ñu fiy débat débat bu am qualité débat bu am qualité te tege ci yoon foog naa ne jamono ji loolu lañ soxla ci réew mi mais pas ku naan ay saak ay nenu baxal ay samay lonet xam nga yooyu jëmaliwul réew mi fenn moo tax li nga xam ne moom la maître Ngagne Demba Touré waxoon ne kii di Bougane Gueye Dany nenu baxal na ñëw ñu débattre ak kii di Pape Pape Djibril Fall na ñëw ñu kon foofu la ñuy xaar yooyu ba tey moom maître nga Demba Touré li mu wax am na solo kon gars yi ñëw leen ci géew bi ngeen waxtaane xam-xam moo gën ngeen di nekk fii rek di wax ay neni baxal ak ñi jaar fii di wax seen waxi sare loolu jëmaloo réew ñu kanam alhamdulilah bi nga xam ne ñii di waa Pastef seen bopp yi loolu mi ngi ci maanaam lu jëmale réew mi kanam débat yu am qualité ñu koy jox askan bi kon maître Ngagne Demba Touré merci beaucoup fi nga ko jàpp foofu la bul bàyyi gars yi buñ si jógee dañuy déglu ji rek ki nga xam ne ni moo di pax Pape Lamine fay jaas ci kàddu yi nga xam ne ni yëkkati na ko ñaaw na lool nag mën nañu ne dañuy jéggalu ci kàddu yooyu ñu leen bëgg a tegal ndax kàddu yi ñaaw na lool moom Dias bu guleet nag mu di ko def yàgg na di yëkkati kàddu yu kon gars yi ngeen jéggal ñu rek ñu déglu ci kàddu yi yi nga xam ne moo di kàddu yi kii di Pape Lamine Faye Dias ñu déglu kàddu yi ñu mel. Sonko ma tëj la ndeyam. ku ma fi ne Sonko ma tëj la ndeyam. Bro, lu udah ngasakan dia si grup boy bro boy Kok noonu kese kesa boy ne nego grup boy ñu yëpp ñu fa booy yow nga nyiap boy. ñu yëpp booy lu tax nga lowal lu du yéen waa Tambacounda yéen laay waxal le 30 dinaa dellu si waa Tambakunda bu jàppale Bougane di nga xam nag est-ce que Tambakunda dafa am ndeyu kenn ku ko fi moom wala bàyyi kenn ku ko fi moom. parce que nag am lu kenn dul nangu Sénégal ngay nek Sénégal nek sa nakar di dox lu ngay dox ay nit joge fele di la bëgg a fontoo kenn du ko fi nang rewontu tubéy la te ragal de ko fi comme nak na ngeen le 30 ngeen ko attee le 30 prenez toutes vos dispositions parce que nek fi di fekk ay nit yu joge Dakar ñew fi yarak ak jàmm salam pour jàppale seen mbokk nga né da ngeen di da ngeen niñu ko téré def da ngeen di foyé sen xel maintenant nak tout le monde est mis devant ses responsabilités ce qui s'est passé tout de suite tout à l'heure ñëpp gis nañ je reviens à ce que j'ai déjà dit nous soutenons Bougane Gueye Dany parce que amul lenn luñu mëna tek ci kaw deru euh, Bougane Gueye Dany tay pour diko condamner. yeen ñepp dégg ngeen kàddu yu ñaaw yi nga xam ne moom la Barthélémy jass yëkkati yeen ñepp dégg ngeen ko. moom jaas nag li mu wax ak li am bokkul li nga xam ne moom la Pape mu Dias wax ak li nga xam ne nii moo am dëgg-dëgg bokkul dafa am ñi nga xam ne dañoo teew ca bërëb ba di feetu feet bu neex a neex a neex ndax kii di Bougane Gueye Dany jàpp nañu ko ba war a taxaw ci ay mbiram feet boobu nag la Dias doon bañ ko fa tudd kii di Seydina Ousmane Sonko loolu la kii di Dias doon tere patriote yi nak dal di ne ñom lolu bu ko bàyyi ndax dañuy tuddu ti di Seydina usman ndax mo leen may jamm mo leen takale ak bu mu jamm kàddu yi nga xamne nak mo fa am dañ koy deglu ci micro kër dof yi ci cadre voilà ni ngeen ko gisee mooy euh, les jeunes pastef bu Tamba ñom ñoo nekk di manifester bi ni ngeen ko gisee nii voilà. yéen a koy dégg noonu ñoom ñooy acclamé ni ñoom Sonko la ñu bëgg voilà ni ngeen ko gisee moom mooy les jeunes yu nekk Tambacounda ñu ngi manifester euh, ci euh, li nga xam si moom la ñu arrêté Bougane Gueye Dany di wane ni ñoom. Euh, doon ko dégloo ci micro kër dof yi ci kadeer moom nag daal dinañ fësal ne rek dëgg dëgg la fa amoon bokkul ak li nga xam ne moom la kii di Barthélémy Dias wax ne ay ñun ñu nu fay la loolee du dëgg benn yoon ndax gis nañu ne ñi nga xam ne nii ñoo di patriote ya fa newoon dañu doon feetu dëgg lool ci jàpp gi nga xam ne jàpp nañu ko kii di bugaan ngay dani moom kadeer nag kër dof yi moo daal di fësal lu mel weddi waxi Barthélémy Dias yi nga xam ne wax na ko kon gars yi mbir mi dëgg dëgg dëgg jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko kii di Bougane Gueye Dany moom mi doon forcé keroog ñu jàpp ko jàpp googee nag la ndaw yooyu doon wane seenu kontaante ci jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko gars yi gis ngeen ne Bougane Gueye Dany paa yi yépp mu ngi nekk ci loo xam ne nii mënees na ko see jàpp tëj ko fukki ati kaso yoo xam ne dootul gisati butte loolu nag moom Bougane Gueye Dany lu mu bëgg la saa su nekk mu di ci dox ndax dafa bëgg moom Bougane Gueye Dany nuru nuru lu kii di Ousmane Seydina Sonko loolu la bëgg moo tax saa su nekk muy def yi nga xam ne nii ñu ngi koy def ñenn ci askan ba nga xam ne teewoon nañ foofu la ñoom fësal nañ seen i kàddu wax ne kii di Bougane Gueye Dany ba dem liggéey te bàyyi caaxaanam yi nga xam ne moom la nekkee ñu déglu kenn ci ñoom fësal na ay kàddu. maanaam Bougane Gueye dañuy wax si réew mi jub jubal jubanti te Bougane ku ñu a corriger la quoi comme naan réew mi dafa am yoon muy doxee quoi dafa war a sonko sonkolu bi tam fexe naka lay liggéeyee quoi comme naan ba am mi du ay tappale moo koy yor Bougane su dafa bëgg sénégalais dem bu bëgg ko na wut beneen méthode bu teg méthode bu ni bërki dem président Sonko loolu la ko wax nee na sonko sonkolu bi tam mu tam dem liggéey quoi Bougane dañ ko war a jubanti dañ ko war a corriger kuñ war a corriger la ndax réew indiscipliné mënu ko yor voilà yëpp de bukan bukan mo moo Ousmane Sonko mo ñu fi ah bukan ah bukan Bougane bàyyi fi kenn koo ah fi gis ko ne Ousmane Sonko mo ko bukan na gëm boppam liggéey gëm gëm sa bop la na gëm na gëm boppam liggéey nii nag day wone ne rek nit ñi ki di Seydina Ousmane mom lañ bëgg te it moom lañ top li wone na ko kon Bougane li mu nekk na ko bàyyi te dem liggéey ci ay tiaxam dong la nek li mu nekk ni ay tiaxam dong la na dem liggéey te baye tiaxam yi mu nekk ci réew mi ndax lii mu nekk jamono ji Sénégal yëpp ñoo ko ko yéene ndax Bougane ci boppam dafa war a yem yow ñett ñi topp ñu la nga bëgg a nekk ci nopp Sénégalais yi di leen tànkal Bougane mu bëgg nekk ci nopp Sénégalais di wej wej di leen tànkal moo tax ñu ñu koy ñaanal fu ñu toll ay ñaan yoo xam ne ñaan yu doy waar la ñaan yooyu nag bu dalee kii di Bougane ko mbaaw am na ñenn ñi nga xam ne teewoon nañ foofu sa bërëb ba yëkkati nañ fa ay ñaan yu ama am solo dal di koy jagleel ki di bugaan ngay dal wër weddi sa bopp kon ñu dëgg ci ñaan yoy bu ñu paré ñu dal di tëj waaw bugaan dafa xamante bugaan dafa réew maa ngi koy bu leen dépassé bugaan déglu rek waaw ndox mi maa ngi koy génne waaw ci barke waaw déedéet ci barke waaw waaw

lii mu nekk di def nii dana ko jural ay coono ak ay jafe-jafe ak ay tardement yoo xam ne nii duutu ko dabooti ci àddinaam moom Bougane Gueye Dany na gëm yàlla te nit ki boo koy nuru nurulu wala nga ne fa jaar nga jaar da nga doo da ngay na nga xam ne noonu la daan doxee nga jéem a doxe noonu gën ne Bougane Gueye Dany ni mu nekk di doxale nii jéppul jaaduwul te ci ay coono rek la koy jural te nag askan wi ñu ci baree bari ci ñoom dañu koo yéene jàpp ki nga xam ne jàpp nañ ko ko ñi naan bugaan duñ ko jàppee duñ ko waroon a duma ñii ne bugaan buñ ko jàppee dañ ko tëj ci kaso bi ko damm caabi ji di ko ñaan ay xeeti ñaan yoo xam ne askan wi ñenn ci ñu baree bari ci ñoom ñaan yooyu ñu koy ñaanal di ñàkk benn bari ci moo tax bugaan yéene dem liggéey yi Amadou Ba chef de l'opposition gis ngeen ni nga xam ne noonu lay génn di waxee même boo amut ak moom sax da nga xam ne kii ñu ngi waxee xam-xam am réew loolu moo koy yor ñu naan débat débat débat digganteem ak premier ministre niveau bi yéeg tuuti mais yow koo xam ne booy wax ay nen ngay wax ah booy wax ay saag ngay wax ay waxi ñàkk fayda yoo xam ne nii kenn xamul waxi lan la ba pare nga ne ngay opposé wu yow koo xam ne nii dafay yéegal niveau bi niveau débat bi lay yéegal isaa ci ay économie la ñuy wax développement bi nga xam ne ni moom na réew mi war a développé ci loolu lañ nekk di wax moom nag dafa amul xam-xam boobu moo tax jamono ji ñu nekk ci ñàkk faydaal yi di ko def di jural boppam ay coono yoo xam ne ni lu mën a ñàkk la kon bugaan ngay dañ encore bugaan gëmali yàlla te nga dem liggéey yi nga nekk di def ni da dalay tardeel te du la jëmali fenn politique da ngay góorgóorlu nga jéem a liggéey ba pare bu liggéey ba pare ba taxaw ba xam ni ñu liggéey moom nga soor a def ni nga nekk def nii ndax lii dem ko sax amul benn njëriñ ndax yow yaay prophète yaay tooñ ñu jàpp la te loolu lu mën a ñàkk la kon buggal nga dañu encore gëmal yàlla te nga dem liggéeyi gëmal yàlla te nga dem liggéeyi askan li nekk ci seen bopp yi pour nga génne ko faaw nga wax xam-xam bu wér indi ay argument yu leer nañ jéem a débattre ñi fi nekk ci xam-xam askan bi sax mën laa déglu mais yow ay montre bi ma yor mën naa garanti kërëg damaa am xaar yow buggaan ngay daal ku la dénk ab carte sax nga yàq ko ndax yow si nga bëgg di dund maanaam yow ci sa bopp li nga bëgg a dund yàlla cërale na la ko pare jox na la alal nga dem nga dem toog ba dund loolu consommé naes quoi moo gën li nga bëgg di def nii nga bëgg di nekk nii bu ma yoree réew mi bu neeral noo bi nga ne géy géy daal bu neeral noo sax bi nga ne naan sallallahu alayhi xam nga yu ñàkk fayda yooyu noonu nga bëgg imposé Sénégal yi Sénégal yi nekkuñ ci yooyu saa yu réew mi dafa nekk ci ay jafe-jafe ñuy xool ñu ko génne ci jafe-jafe yooyu boobu ko xam-xam da ngay dem nga réewu ji wala nga raaru tool bu yab nit ñi ci yi nga nekk def amul benn njariñ ay ay ay caaxaan képp la Amadou Ba chef de l'opposition bi mu génnee gis na ko dëkk bi dafa tàmbali di neex ñuy wax ay waxi débat yoo xam ne bii bu ñu ko débatté fii ci réew mi dana bari ñoo xam danañ dem toog ndax amuñu lu ñu wax dégg nga maître Ngagne Demba saa su nekk mu lay woo ci débat public pour ngeen toog mais yu ñàkk fayda yi ngeen nekk moo amul benn njëriñ yu ñàkk fayda yi amul benn njëriñ loolu nag faaw ngeen xam ko ngeen jéem koo jëfe kon gars yi jaa ngeen jëf ban mën dund ak opposant yu bees yi fi nekk même jaas même baax lu mu jaas yëpp xam ngeen ne jaas bu ko jox ab carte jamono ji mu yàq ko ndax jaas yabaate na dof na réew na ku gis nii mu doxale nii nga xam ne nit ku wér moo nekk nii kii nag boo ko yëkkatee yóbbu ko assemblée nationale lu fa mën def rek ñun Sénégal yi ko fa yóbbu ñoo tooñ suñu bopp moo tax nañ def fekk attention bu baax a baax a baax te jël ki nga xam ne moom la président Ousmane Sonko tànn ñu mu tànn ñu jël leen fal leen yóbbu leen fële ci assemblée nationale loolu mooy li nga xam ne nii mooy lu baax la tey mooy lu wér bi ndax kii di Pape Lamine Dias ku ko yóbbu ci assemblée nationale yaa saagal sa bopp yaa raylu sa bopp yaa dumalu sa bopp kon gars yi jàngeen jëf yàlla ñu yàlla may xolu muñ mën a mën a dund ak yu bees yi nga xam ne ñu ngi ci bu ko yàq jàngeen jëf gars yi ba beneen yoon